faatu ci université bu Ndar ministre des forces armées moo joxe woon ordre de gi procureur de la république Serigne Bassirou Gueye saisiroon waa brigade prévôtale gi nga xam ne bépp soldat bu am lante ak yoon ñoo koy enquête brigade boobe moo désigné woon sous-lieutenant Moustapha Sané ci mbir yi l'observateur nañu ci lu ko jiitu sax bi mbir yi di sooga ci université bu Ndar fukki fan ñett ci weeru mai ba brigade territoriale bu Ndar doon lijjanti woon bal réel am na it ci ginnaaw bi ay xibaar yuy wax ne ba ñu koy auditionné moom su lieutenant Moustapha Sané nangu woon na ne bal bi rey Fallou Sène ci moom la jóge waaye légitime défense la waxoon nee na yi dañu ko songoon mu fital ngir bëggoon a rawale bakkanam yéenekaay bi dañu ak ëllëgam tey ji lay leer waaye su moytuwul ci mandat dépôt la jëm ñu dem ci xët mu njëkk Vox Populi fekkaat fa xibaar bi journal bi gis ne ajumay tey ji ajuma ñaar fukki million ak juróom-ñaar moom la ñu fa ngembal ba jamono ji ñoo ngi wër ka fa newoon comptable ba ñuy atte mbir mi gisuñu koon ca tribunal waaye juge bi atte na ko ba gàll mandat dara ci awloo sam mu di fu ñu ko fekk nañu ko jàpp yóbbu muy guddi di bëccëg bëccëg gu nar a tàngate ci réew mi Le Quotidien nee nañu mooy bëccëgu tey gi ndax kuréel gii di plateforme aar li ñu bokk ñoo woote am ndaje ca place Obélisque te nee nañu ndaje ma préfet bu Ndakaaru aaye na ko waaye waa ñu bokk nee nañu gisuñu lu leen di tere def seen rassemblement gi ay leeraange ki la ñu bëgg ci waxi contrat pétrole ak gaz bi ñuy wax ci réew mi enquête dina kay bokk ci waa aar li ñu bokk di ñu wax ci enquête dina kay ne ñoom jotuñu wenn këyit wu leen di wan ne bu Ndakaaru dafa tere rassemblement gi loolee ay sos la te ñi koy def jubluwuñu ci dara lu dul bëgg a décourager askan yi ba duñu ñëw ci rassemblement bi waaye rassemblement bi moom dana am Les Échos nañu préfet bu Ndakaaru aay na manifester gi waaye manifester kat yi ñoom nee nañu dinañ manifester yéenekaay bi nañu mbir yéeg ni mu demee nii ku yóbbu séentu ab jàppante seen digg ak takk der yi ñoom takk der yooyee sax ñoo nga ca place Obélisque fees fa dell kii di Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz Les Échos xamal nañu ne joxe nañu seen kàddu nee nañu danañu bokk ca ma te du ñoom rek ne muy Abdoul Mbaye di Thierno Alassane Sall la consort gi ñu bokkal congrès de la renaissance démocratique nee nañu rassemblement aar li ñu bokk tey bii ku leen fa dëgg ne leen massa ba tey ci rassemblement boobee Les Échos mi ngi ñuy xamal ne waa bokk demoon nañu seeti Abdoulaye Wade ngir bëgg waa Parti démocratique Sénégal ñoom it bokk ci rassemblement bi la ñu fay waxtaane di léexóor gi ñu ne moo am ci pétrole bi ki ko sooke di Aliou Sall l'observateur nee nañu jamono ji mook liirub ñetti ndey ñoo yem ni aw turam ñoo ngi koy ŋawtu ŋawtee fu ne ci réew mi moom Aliou Sall ku ko xamul woon xam nga ko léegi ne coowal pétrole beek scandale bi ñu ciy wax daanaka média yi nekk ci àdduna bi yépp ñoo ngi ciy wax keneen ku xëy di wax ci mbir yi moo di Barthélemy Diaz ubbil Vox Populi journal bi nee nañu Barthélemy Diaz taqal na Macky Sall ci coowal pétrole bi ndax nee na coow leeg li muy bari bari Aliou Sall du ca lu bari mbubboo rek maanaam prêt noo la ca waaye lépp Macky la Macky moo nekk ci ginnaaw Vox Populi ñu ci ne maire bu maire moo sacré mu di Barthélémy Dias nee na bokkatul ci association des maires du Sénégal di AMS bàyyi na ndax xelam xalaatul di bokk ci kuréel goo xam ne ab sàcc ko jiite Sud Quotidien nañu Barthélémy Dias yamlu foofee weddi na procureur de la République Serigne Bassirou Gueye moom Barthélémy Dias nee na gëmu ko ndax tooxi doon a gutol moom ab laaj la xëyee li muy laaj ci xët mu njëkk moo di réew yi nga xam ne pétrole feeñ na fa jëy yaag jafe-jafe yi mu leen jural ndax suñu réew di Sénégal dina ko mën a moyt jëwrin ju ñu denk wàllu pétrole beeg énergie bi ci réewum Sénégal di Mouhamadou Makhtar Cissé mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkku la témoigné ne lépp lu duy matuwaay jëral nañu ko ngir anam yi ñu yoree suñuy ressource mën a mucc ayib ñu fekkaat ko ci xët mu njëkku l'Observateur moom Mouhamadou Makhtar Cissé mu fay wax ne réew bu doon lu waay xam wax ko kon kan du nekk ci kaaraange